ni ñu ko war a bañ tey jii Sénégal ñaata million bi nekk ñoom ñëpp bu ne woon permis yi ñu duñ ko jëli dañuy dem ginnaaw wala duñ dem ginnaaw ah sénégalais yëpp yor oto nekk ay jullit bu ñu am embargo woon permis yi ndax dina dina jàll dina jàll wala du jàll du ngeen ma tontu du jàll kon bu jàllee nun la jeex na tàkk mu ngi nii lii rek mooy problème tey ñëpp bu ñu bañee ni kenn permis kenn du ko laal d'accorduñ ci bu ko kenn jëriñ waaye bu ñu demee jëriñ ko ku nekk jël dugal sa bos di dawal nga sa ba pare sa dañ la koy jaay su nekk ni permis bees ñaata ngay joxe jox la ko dix mille francs loolu ñaata la ñaata la certificat médical deux mille kon kay nekk dix mille douze dix mille permis certificat médical deux muy ñaata ñaata million la ba pare te lu bon lañ la jox loo xam ne nangu nga yow yaa waxoon d'accord ma ci góor jigéen léegi yaa ngi téyit boo xamante ne mu ngi sa poos nangu nga kon ñëpp ñoo ko war a fay ministre na sexe moo tax moo naa om homme c'est vulgaire. femme c'est vulgaire. jeex na man ñëw naa homme la kii ñëw na femme la. Ah, jeex na sax non loolu. loolu stage li ma bëgg a wax mooy nit ñi ñoo ko nangu. ba ministre bi ñoo di wax. tey kilifa yi nekk ci réew bi nga xam ne dañoo jiite l'islam bi. xam nañ la yow est-ce que bu ñu kenn naan nañu ay mag jëmbale saay saay. zaar ñëpp xam nañ ne góor jigéen nañ fa dugal. Hmm. lan mooy zaar. genre genre góor jigéen la. genre gën a garaaw moo ministre ministre bi ñu créé ministère de la. xam nga wax nañ la bu leen war a ràndoo ngeen bay. famille kay boole de góor ak jigéen yi bi mu si. kon kay leer na. ñoom tamit seen léegi nag su ko kenn jël jant xanaa mu ñu tëj 14 millions yi mu ñu ne 14 millions yi du ngeen dawal ko mais soo ko bañee léegi nga gis fukki jullit yi dem nangu. ah waaye noonu loolu dara quoi garaawul ah non garaawul yaa ngi ci mën ay poos maa mën ay dara lii nga taxaw di xeex fukki Sénégal yi ngi ni ay jullit yoo xam ne yéen a bokk sàppe nangu nañ ko ñoom kan la Sénégal di dem boo def di ko layam waaw wax ñu ne dara nekk maa ngi dégg dégg benn waaye bu naan bàyyi leen diw deful dara day liggéey booy demal ci kanam Hmm. góor jigéen nga koy encouragé naan liggéey hmm. góor jigéen liggéey tey jii boo fi amoon doom léegi di ko tere mu nekk mbër lu ñuy wax sa papa dafa bon waaye ñëw na ci man ne ma baal sa doom bi mu football ak a mën a football booy bi da lay indil ay million wala tànk bi dafa neex ay million loolu la <laughs> ñuy wax de wala ñëw ba ci man ne am fi di ma million million yoo xam ne safara bi dem ba njël millions yi fi nga koy bàyyi wax naa leen léegi kii dee barki démb bi ñaata chiffre d'affaires la bàyyi. soixante quinze milliards. milliards waxuma million de lu tax dugalu gi ci bàmmeel lu tax indaale wu ñu yóbbu. dañ leen góorgóorlu mu tiyaabu tiyaabu mooy wiy des. maa indakum yan fan du ma maa góorgóorlu ñu góorgóorlu mbokk yi tiyaaba gën nañu alal àdduna alal àdduna moom benn léegi soo dee fi nga koy bàyyi fi ngay bàyyi sa jabar fi ngay bàyyi kër yi fi ngay bàyyi oto yi fi ngay bàyyi milliards yi nga dem yàlla la koy kese buur bi dafa feebar mu woo premier ministre bi mu ne ko su ma dee ne waaw ah, ne na ma docteur yi sang na ma docteur yi suuf ñaar mu ne bu ñuy yóbbu ar bu ñuy yóbbu armée yi alal sama alal bi ma doxo amoon nañ ko lal nit ñi dëgg ci ba armée yi kenn dox ci suuf si nañu dox ci kaw alal mooy nañ génne samay loxo ci biir kees bi. nga wax li mu ne ko damaa bëgg ñu xam ne docteurs yi mënuñu dara alal ji amul njëriñ hmm. maa ngi nii di dem samay loxo yóbbaale wu ma dara. ku sonn ngir alal rek alal ji di nga ko fi bàyyi dee fekk yàlla sooy dem du yóbbaale dara la yàlla wax ci alxuraan mooy yàlla wala xat jittumuna furaada kama wa taraktum wara zuhurikum alaysa allah kon lépp lu yàlla mayoon doomu aadama bàyyi nga ko ci ginnaaw bàyyi nga jabar bàyyi nga doom bàyyi nga kër parking baa ngi nii yow kenn sa kanam borom yoo xam